mbokk comme niñ ko fara do xé di len jaajeufal di len ñaanal jamm Gambian Talents and ak yeen ci li nga xamne moy Big Boss Entertainment fi nga xamne moy sere ko West wess mbeur yaangi non di bakku ndeysaan làmb dal baxu gor la tamuy deug waaw waaw dimanche ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin Serekunda West mini stadium Big Boss Entertainment ñoñi fo foo Biridel ndongo dara. Biridel mo def rasta yi moo ñu jox ginaaw ndongo dara la ñu lol ñaari xale yaa ngi noonu ñoom ñaari yëpp seen combat yi mujj dañ koo ñàkk oh, xale yaa ngi bëre ndongo daara ndongo daara ko bëgg ndongo daara ndongo da oh ndongo daara daan na biridel ndongo daara daan na biridel la ngeen ko yebee tey xanaa mu ñëw bëre daan ñibbi rek. daan. waaw te day daan. te incha allah rabi da koy daan. balaa mu jeexee ma ñëwaat wala. ñëwaatal maa la ko. mbaa bu dara amee du ngeen jooy. lan ah, ñun dañuy daan. sawli la kan la. dañuy daan ba pare ñu invite la nga ñëw lekk si mbaxal ñu ñooy doomi meen mbaxal lan yoo yaay lekk mbaxal yow sa jaba chaque jour mbaxal la lay toggal. Ah, waaw waaw sa jaba chaque jour mbaxal la lay leer na ma nañ tooñu ma. Eh, Assalamualaikum. yéen a ngi fay. ñu ngi fay bu baax waaw sew dis lay andi. na ngeen ko yebee tey. ndam rek ndam rek. waaw. ndam rek lañ ko yebee. incha allah ki nga lan. ngeen day wala. day ndam rek ci kaw ci kanam fa ragal dëkku fa ragal dëkku fa barke yonent ñun duñ ragal maa la wax malien waaw waaw Ibo Town ah kooku ragal dëkku fa barke yàlla ragal dëkku Ibo Town tey guddi guddi Ibo Town lañ wax ragal dëkku Ibo Town waa jëlal ma loolu na nooy ndeysaan ñu daani. saa nga dem niil sax. waaw waaw noonu la ma demee. waaw. aywa dikkal. ba léegi dégguma muñal kon su ma génnee dégg ko si biti rek damay xam ne dama war a defaat leçon rek waa nekkaat si li ma nekkoon parce que ku xam Seydou xam ne jàmbaar la loo jëf rek moom ngay gis ñii toppuñ kenn si Mali Foro waaw man lii nii ñii ñii yabuma leen sax waaw am na lu ma leen miinal nag mais yàlla ma yàlla suturaal loolu. léegi yow loo leen dig. Ah, lu ma leen doon dig rek. ñoom daal nee na daan ñibbi. noonu lay demee sax bu soobee suñu borom. rag muy gaaw la. non man tali nding laa dëkk. Ah, <laughs> waaw kon xam nga ne kon mooy loolu Ibotan sax ragal dëkk fa parce que diggante Ibotan Talining moom loolu bul xalaat yow ragal newut si yow sax waaw di ñaan yàlla may ma rek loolu laay ñaan man maa am booy ñaa yaxu daaw la lënd la waaw kooko di lënd nga naan ma waxi mbër yow ñëwoon nga ma wax ñëwoon nga ma wax ma jëf kon nag jarul nga may wax waaw du benn yoon nag waaw jeex na amul ragal. nga ni kaas ak di ñaar waaw loolu mënul xam nga foo gis ci àdduna maanaam concurrence da am solo àdduna kuy kuy def lu saf ñëpp amul fenn. Jaliba Birkama Mbolo police booy fekkee ma boole. waye chama ñaari combat tay dafa melni roof a fi bëgg a xolé xalé roof nañ roof bu nek lool lañ indi parce que bo leen sétane ndax maat mu ngi may wax mu ne boy jali roof rek lay def te police boy boo gisee taxawaayam ni nga xamné day roof kon ñibi nañ salum wala ni ko ma ñi won ne réew mi am nañ am na am nañ momel muy roof Li am na lum ñi won ndax warut ñoo won ñu delluwaat ci roof bi gën ko saxal wa baxna war nañ sé mëna a delluwaat saxal ko ndax lool lañ mom police boy, oluwul ko say public lay bëreel. kan Jaliba. kon léegi mun naa ni meew. bi jeex na. Police Boy ak Jaliba Jim Cissé. mbilib bi génn ci diggante ñaari xale yi caama. waaw second baa ngi noonu di door. Police Boy lan lay forcer. galgal bu duggee dara mën naa am. police booy Jaliba. waaw Jaliba police booy Jaliba. waaw. wallaay Jaliba bul duggee bu duggee Jaliba nga am. ndax Jaliba tey la am. kenn si ñoom amut wooneen. waaw combat bi jeex na draw la. draw la gis nga. Oh, プレゼント ñoom Big Show Issa FM ndeysaan bu ci dugg kook suñuy kilifa ak suni am di jam. daat fay def nak amul volontaire Lepp di daw ci démocratie. est-ce que comprendre nga kon ñun def naa na buñ amoon ñu melna ñun wax deug yalla am warna na noo xam ne ñun yàq làmb tax ñoo jóg ñu jàpp na nag yooyu yëpp ñuy jëf pour ñun bu ñu waxee danañ ko dégg te li ñu wax ñun am na ñoo xam ne koy jariñoo te ñoo koy dégg est-ce comprendre nga ndaxte tey boo na leeral point com waxuma la péeju làmb yi nekk ci réew mi de dama na la benn péej bu leeral point com ragal fii amut clan yi ne ci làmb ci man bañu ma clan sax waaye clan ak loo ko clan clan clan clan clan doom day Moussa ne bu ne ànd bis boo nekku ci dëgg naan la nekkoo ci dëgg waaye ànd boo xam ne yow bu ne ànd man ak yow bis boo nekkul ci dëgg bu mën a nekkul dëgg ñu ne man bëgguma la wala kon ñun ànd bi du dëgg loolu lalut ab ànd ba pare maanaam làmb ñun bu njëkk dañ daan yëngal ruube ba mu neex te daaw demé ni waye légui lamb dem na ba yow légui légui da ngay xalaat làmb démb xalat tay da ngay dem ba da ngay tit parce que violence biñ ci bëgg duggal dugal énergie bi bëgg a kenn ku nekk di bañ sam morom. ci lo xamné ñi dal teunk di tënk point comme fum jëm leeral fum jëm ah leeral yow laaj na la yow yaay leeral di. manam leeral ñi ngi waaj pour indi radio wala télé wala lan. lepp ngi waaj alaaji ka ba ci terrain mi ngi combat bi maam doyna war diggante Taïga ak Caatu Maam Góor waaye maam combat lamb ji gis naa ci ambiance. waaw Siteu moo war a ñëw tuus. Siteu war a tuus. oh combat foo saaf foo saaf bi jeex na. Caatu Maam Góor yi tamit téye boppam ngir bañ am defet kon combat la boo xamante ni faw rek mu xaw a jël time tuuti. mu ndee ñoom ñaar jàkkaarloo lañ ci man ku nekk ci ñoom xas-xas loo caatu maam góor tayga caatu maam góor tayga caatu maam góor tayga oh caatu maam góor daan na oh, lambaja lambaja lambaja lambaja tous ba problème tous ba problème xana bi Cité lañ fan Cité lañ luñ taxaw ñu taxaw suñu kanam dañ ne tamit ay nit lañ waaye da ngeen ngir xalaat nañ toog nañ toog rek rek nañ toog rek li nga ne moo ñu fi waaw ñu xam ñu ko pourquoi ñu war a ñu ne ba bi la xanaa taxaw si kanam nit ñi ñu ne la ñu jógee foofu ñu bañ a jógee foofu

maa la wax loolu combat bi volume na ci tey ndax Baboy fu ne lay génnee ku ko weddi laajal Bébé Ama wala nga laaj Baboy Sénégal wala nga laaj Yawou Dial Baboy nii mu toll doole jëpp na ko. combat flag association la Big Boss Entertainment ñoo ko tëgg na ko June 2022 fi ci Serekunda West moñu jox gannaaw ba boy mo xess Baboy oh ba Baboy Volume. nee nay rinkum dajé oh, oh jàppante nañu. man jàppoon naa Volume balaa jàpp day xeex waaye oh. ndeysaan xeexul. Volume Baboy. ah Volume bu jappé njëmb man na am. Volume Baboy Volume ma koy door Volume ma koy door. Volume Baboy. mbot ma. Volume Baboy. doole doxul doole doxul. wala daal na baaboy. doole doxul jàmm doole doxul jàmm. wala daal na baaboy ko baaba jeex na. doole doxul jàmm ko baaba jeex na. teel ma ko doole doxul jàmm. kay kay dawal kay kay kay kay. baaboy. tànk ba maa ma ma arbitre si la dafa ma ne. boo ko tegee si yoon mën nga maa daal moom baaboy. billaahi ku baax la yal na la yàlla fay. yow su ma dellu kaa dinaa la si coppal may la si. jërëjëf Babou Babou jeex na yaa xale bi. Babou yaa baax ku baax nga. xam nga Babou sànq balaa ñuy bëri daf ma boo ko tegee ci yoon mun nga maa daan. te yàlla dafa def suma gannaaw la bëgguma ko dóor. dóor naa ko waaye. dama jàpp si ngeen mu baaxut. ma. xam nga man taalibe Serigne Touba laa man ci tamuy su ma nijaay jàmm gën kon kooku bu daanoo. amoo lenn loo gis moom loo xamante ne day ki naka kooku bu daanoo day jóg ne jërëjëf borom Touba man maay mbër moo xam ne ci làmb Gàmbi du ma daw ba daw wala ma daanu ba jooy non non loolu gis nga gis nga ko sa kon yàlla na la yàlla fay sa xol yow après maa ngi yow dinañ yaatal lu bari incha Sora bu club Jabang Bolo ak Bébé Arobas bu Baara muy combat ñaari xale xale yu nekk ci yoon. waaw maam ji bi ñu ngi sant yàlla di julli si bi di sant ñëpp di sant suñuy aari waajur di sant waa axlu làmb yëpp eh, di wax rek kontaan nañ trop wax dëgg fa yàlla bi ñuy paatee tuddee drapeau bi moom ñun ñëpp ñoo ko yëgandoor eh, ko jira mu comme bisam moo tax manager yëpp ñëw nañ en time ba pare ñëpp a ngi dox pour la jàmm am si làmba ji waaw because wax dëgg yàlla lii moom mbégte la si ñu daal. waaw significant bi lii lan la mën a jàngalee seen mbëri ñooy bëre seen biir yéen a ngi bokk association tey ngeen gën ko wone ci flag bi ñu leen tuddee yéen ñëpp ngeen ànd ñëw prison ci ñaari mbër yu nga xam ku ci nekk ci ñoom mu ci club waaye tey wane ngeen bennoo lan ngay wax seen ndaw yi nga xam ne ñooy jongante ak fans yi leen di topp ñiy xuloo di xiiroo di ŋaayoo tey ngeen wane exemple. non lan la ñuy won euh, sample pour àddina euh, pour réew ndax ah, boo bàyyi xel lii ifin euh, politiciens yi war nañ see roy mooy comme ñun ñoo bokk réew mi te ñëpp réew mi dem si kanam moo leen ñor dama gëm ne kon waruñu nekk ay noon yoo xam ne dañuy xineyante lu bon parce que boo bàyyi xel Matar Seen moo nekk sama ndeyjoor mën a jëla kii Pape Senghor sama càmmooñ mu nga Banjul kii mu ngi mën a ikiri ndongo man maa ngi mën a jëf jël suñu mbër ñoo war di bëre kii mu ngi man a abugo mbooloo muy Ndeye Saka eh, ki alaaj ki moo fi jógee ko ku ne xam na ne xoyantaan ak lekket bu baara foo effectivement ni ñaa seen combat te ñoom ñaar ñoo amoon ñoo téyoon drapeau bi loolu rek samp la jàngale ni lu dul jàmm jàmm ko gën ñëpp war a roy si lii bañ indi fitna gis nga sport boo buggee mu euh, mu dem si karam rek foog ngeen xeex si fitna ba gis ne moom ngeen fitna su ngeen ko téye rek lu ngeen bëgg a def da koo def mooy waaye saa yi ngeen de dem làmb wala sport bu mu tudd su ànd ak fitna rek sport boobu du gaaw dem si kanam te suñu royee si manager si ah làmb dina wàññi coow dina wàññi fitna coow na du mën a ñàkk si làmb parce que loolu la baaxoo waaye pour nga dem gis ne waa làmb ngay xeex te boo bàyyi xeex suñ coow sa lu mu bëri bëri si groupe wala si rajo ñun ñooy bokk di dem ngénte ñooy dem takka ñooy dem dëj ñooy toog si làmb di kaf dëree su jeexee rek jeex na ñu loolu la ñuy dundee ñoo moom fans yi jërëjëf mm-hmm. waaw dañ ci dee wax parce que euh, euh, fans bu nekk daf am président mbeur bu nek daf di am president bo xam moy nek moy mooy France club am bi suñu amé event dañ day waxtan ak ñom seen groupe chat si dañ day am ak ñom meeting di leen wan na leen làmb bu jeexee jeex na mbër bi mo jongante yéen lu leen war rek moy ngeen yëngal am nga support seen mbeur mbeur bi am lu mu yëng yëg mom tam mu yëngal ci suuf su ngeen daane ngeen and soppo dem ñibi bu leen saaga ken bu leen xass ken bu leen jëm ken su ngeen ñaak dem ngeen santat suñu borom dem liggéeyaat parce que lamb loolu la am dafa mel ni rek tey soo xëyee dem uti wala su paa bi xëyee dem uti su amul dépense du tere mu ñibbi si kër gi te bu ñëwee maire war na ko mun a dalal war na ko mun a jàmmal njaboot gi war na jox ko jom jox ko xam ne su paa bi sañoon bu demee lépp lépp lu mu dem uti daf koy am mbër bi tam kasaale ko noonu kon fans bi tam na demee loolu am ak ñàkk. nu dund ak dee amee noonu la am ñàkk amee kon soo ñàkkee santal suñu borom soo amee tam gën dellool sa borom jukkal xam ne defaloo la yàlla lu tax mu may la wala lu tax mu xeeñ la wala mu xeeñ sa morom nga dem liggéeyaat soo kontaan nañ si yéen jël si yéen ñëpp parce que wax dëgg yàlla teeru ngeen ñi teral ngeen ñi kontaan nañ si parti bi am na tam moo gungee promoteur bu nekk xale bu ndaw am ne mu ngi doog a dugg si làmba te bis bi ku ñëw gis ne taaru na wax dëgg yàlla nit ñi kontaan nañ bëgg nañ te <laughs> bi surprise surprise la si man fu mu toll nii eh, suma yaram soo toj suma yaram sax dafa daw you know parce que Pathé lu mu def nii man musuma am lu mel ni lii man moom dama seen ñu ma doon laaj ndax maa ngi ñëw si lamba ji ma ne leen waa maa ngi si yoon di ñëw ma ñëw ba si bunta bi ñu woon ma lii so dafa daw yaram torop waaye kenn du Pathé tamit maa moom yaaga ne si gob bi maa moom yaaga ne si go bii di dox lambay since 2016 yoo xam nga loolu léegi-léeg dama dee ex si si kaw skuutam yëpp ñu dem tawal combat bi Dombay waaw bii la président lii la paata def de waaw dëgg la promoteur bi musuma ko gis musuma ko xam dama tase moom mu toog ñu ne ma kii mooy big boss moo advice ko lu nekk si lamba ji xam naa loolu xam na ne lii ku ma wax is moo tax mu mel ni waaw kon maa koy gërëm di ko sant bu baax a baax lii mooy first night am fii yàlla na gis boppam yàlla na ko yalla may jàmm salaam si pro lamba ji neexut waaye nen ko wis moo ñu yaatal ko bunta bi Soora moo jàkkaarloog ñun Soora a noonu moo def ngemb lu ñuul am lu weex bébé arobas moo ñu jox ginnaaw moo def ngemb lu am lu xonq li ref li baa ngi noonu di wax ak ñoom Jim Cissé caamalaay combat baa ngi noonu ñaari xale yi combat bi dem amateur yaa ngi ko doon xaar. xale yii ma neex. non buy neex la ndax Sora nee na ko. Uh-huh. ñu bëree ma daan la sama papa jël sa papa arobas ndeko sama papa ak sa papa duñ morom waaye tey ah lu waay doon jaay léegi mu lamba arobas noonu na man gal indi waaw biiri laa indi damay costé waaw mu ne ko balaa nga costé maa lay taxawloo waaw waaw moom sooro ko waxoon loolu sooro jaabang la jógee seefa la mujj daan fii Arobas Bébé Balla la mujjee daan fi Bébé Balla jaabang la jógee soora moo ko indi woon muy combat bu nga xam ne ñoom ñaari yëpp dañ leen ci yenn ñaari xale yaa ngi lewaatoo sóora ak Bébé Arobas waaye xale yi dañoo yem ci doole mbayka mooy central refli bi mu ngi wax ak ñaari xale yi nana leen bëre leen Wisul baa leen di boole moo leen di tàqale. combat ba demaan na. ñaari xale yaa caamalaay. diggante Soro. ak bébé ci digg géew bi. mooy bëre ak bébé arabas bu club baara ñaari xale yaa ngi ci digg géew bi maanaam boo koy xool ci wàllu taxawaay ñoo tolloo ci wàllu gabari ñoo tolloo waaye tamit ñoom ñaar ku ne dafa prouvé ba egg fii Soro tey mun nañ ne dafa jël si revenge waaye dafa bëgg a wane boppam ndax ci làmb la nekk ndax CFA la mujjee daan fii mu ngoog bébé arobas nekkoon ci tolof tolof am ñaari defet mu jëw fii daan bébé Balla daal di taxawaat. match 20 la tey June 12 mu ñëwaat fii. mu ku ne xam na ni waa Baara ay champion rek fa nekk. waaye kenn du waa Jaaba ay ndaanaan xale bu ñu forme sax bu feccee ñu xàmmee ko. kon tey combat bi combat la boo xam ne ku ci am ndam mën na laa yóbbu feneen. refli baa ngi wax ñoom ba mbay kam Ka central refli bi bi mooy second time mu leen di oh, woonin woonin ñàkk bëre ku amna ben na benn wonin songante guñ dorante guñ ta xam nga ne lolou taxul ñu tok fi ta combat xalé sax warul yag ndax ñom ñoy bëré lu neex bëré combat mag dañ ne ngay moytu da nga and ak mbolo am loy soralé waye ay xalé dañu wara ñew rek deggal seen bopp bëré wane seen bop waye tay nee la buñu bu xexé da fay neex buñu bëré da fay neex buma doon bébé arobas nak damay fexé japp ngemb waaye Soro ngembam bi ma gis neexul a jàpp. Arbaas mbërum séeréer la bërekat la. bërekat la ndaanaan la. waaye Soro tam ndaanaan la. kenn du Soro. ñoom ñaar ku ci nekk ni nga toll sa doole ëpp na loolu. oh oh bébé bébé Arbaas mi ngi mel ni mu ngi bëgg xeex bi pour jiyaloog moom mën a jàpp ngemb li loolu la bëgg fi mu ne dafa bëgg maanaam daje rek la soxla fi mu ne dañoo bëgg ñu daje. mbaa renkum renkum bu ci amee. bu ci renkum amé ko kor sa morom mën nga ko dóor mu wacc wa tek tek gi bu amé dal bu ku wut kenn muy blo mu nit mu na ci japp moromam def ko lu nga xamné ne ay mbokkam dinañ ci sen loxo maa la wax lolu tay yaakar na né bu ñu jàppantee ngeen bu nga gis béré mam ba bu neex la fa la xalé ñu yemee dañu tolloo lu ne xees ak ñuul rek ngay xamé ci ñom wallahi ndeysaan soora moo ñuul moo jàkkaarloog ñin bébé arabas mo ñu won ginaaw moo xees moo gën a xees tuuti ngemb li am lu ñuul am lu weex am lu xonq waaw am lu xonq moo jógee baara jàll géej jàll géej leket bu baara ñëw ànd ak moom waaye sóoratam jaabang ñoo ko dar waa jaabang yëpp a ngi ci gannaawam ñu gaaw waay balaa tuusi gaa ko eh mi ngi xeex waaye xeex bi soxlawu ko jàpp la bëgg soxlawul xeex bi dafay cokkaas sa waay mu dajeeg moom jàpp ko fi mu nekk nii bébé arobas jàpp la bëgg te soro dafa mel ni wul japp bi ñi ngi lewato ci kaw di bantay baram. guna West Ministerium. Stadium. jege nañu saako yi de eh eh Soro sanina wa ñom ñaan ñaar kën gëmu ci xex bi ñom ñaa eh bébé arobas tousé nako ko kurpeñ bobu dal na de waaw waaw ñi ngi dambantay baram rek ba xam nga ne ñu bari yaakaar nañ ne combat bi moy dakk ci combat yi kon xalé yi buñ bari ni daf ñuy jaaxal ndaysaan mi ngi nonu bu dee Coins ak ki nga xam ne mom mo nekk. wa wa fam koy jappé fa la génné sako yi pourtant waton na ci sako yi nag. wala bébé arobas. ba do am wonin wa da fay am wonin amna ñaari wonin. bébé arobas am ben wonin ah fi mu ne nii nag moo soxla combat bi nak mom bébé ah, mom Soro waaw parce que nak euh bu jéxé ni da fay ñak di dóor la waaw waaw nga dëgg dé war nañu mëna a ay ci nañu bëree eh! bébé Arabas dóor na sank way dalul mi ngi damanté baaraam xex ba commencé na bébé Arabas Soro waaw moo nekk di moom moo moom dafa mel ni moom moo sëkkatal moo sëkkatal Soro Soro dafa am lu bëri lu muy moytu bëggul jàppante bi te jàppante mënul ñàkk déedéet bëre la Soro gut lu dal te dafa mel ni xeex bi la gën a bëgg ah Aro ngi cokkaas tey ku daan fii ci ñoom ñaar yaakaar naa ne war ngaa mën a jël signal 2 waaw lamb day ubbeeku ci yow xam nga arobas dafa nekkoon ci yoonam daan ama daan bébé baliya ñëw tegle ñaari defet mu ñëw deferuwaat ci bébé Balla tey jël sóora sóora déggagul mu ñël benn combat la am draw diggante ma bébé ma caaca ba mu ngi door làmb ah kon yakaar naa ne tey moom sóora war naa gën a soxla komba bi ndax tey bu daanee xale yi dañ koy bàyyi xel waaw bébé Arobas nag moom daanaan la. boo xoolee Arobas moom dafa xaw a manqué le doole. waaw doole na ci li li ko xaw a wàññi ndax boo xoolee. ama mi bu jë bëre ama mi nga xam ne daan na ko combat bu njëkk ama fii la bërek meles barki démb combat spécial bébé Balia gis nga combat bu mujj commis junior la daan diggante ma ki nga xam ne moom moo nekk bébé Bildin moo taxawoon bébé Arobas dem na Njawara waaw bébé arobas dem na Njawara. waaw bëree dóor moom. manu cee ñàkk. <laughs> ndax ñoom sa boo xoolee ay mbëru séeréer lañ. waaw liñ leen gën a jox feeboret mooy dóor. waaw waaw moom la leen nit ñi gën a waaw. moom la bi lay gën a lay gën exactly exactly waaw mu ngi noonu. maa ngi fàttaliku leget ak koyantaan bi mu naan moom day door rek day door barewul door door rek. pour wan la ne bébé euh, ki nga xam ne moom mooy bébé arobas leketa ko indi te xam naa dina ko pripia ci bëre ci bëre bi waaye xeex bi tamit mënu cee ñàkk ndax ko xool leket démb ak leket tey xam ne am na lu bari loo xam ne wecc na ko ci wàllu dóor bébé arobas tamit tey xam na ne dafay sóoraale ne combat bi mënul ñàkk xeex kon yaakaar naa ne combat boo xam ne faw ñu ñamante doog a jàppante bébé arobas nag bëgg naa jàpp ba sonn waaye sooro mayu ko bunt bi boo xoolee nim ngemboo rek nga xam ne may ko bunt bi ndeysaan ñu ngay lewaatoo waat bébé arobas maliya ngay tuus waaw man nag bu ma jëm ma sañoon maam mbër mu mag buy tuus dañuy xaar ba combat bi jeex. waaw grand combat waruñ ko boole combat. déedéet dafay tax caméraman bi dafay dafay confus te nag lamb ji. ñi koy wane ci lañ bokk. ambiance bi daf ci am solo. nañuy sóoraale caméraman yi. ndax bu bis bi peesoo ñoom ñoo koy nettalil askan wi. Soro dafa mel ni li sawaay li sawaay di dem ardo tax na mu bëgg mu bëgg a enseigner xeex bi li sawaay dem ardo tax na mu bëgg profito ci xeex bi waaye eh, bëtt ba bëtt ba soora arobas bëtt ba léegi nag fi mu nekk nii ku ne jàpp eh waaw lan la laa ilaha illallah ko caxabal sa waay ko sa waay ko mu rëpp Sora nag bu jàppee bëre bi dina yomb bébé arobas Sora jàpp na waaye bébé arobas ndengeñ na fi mu ne nii bébé arobas li ko sonal mooy loxo bi loxo ndeyjoor bi jàpp moo tax mënu ko yokk waaye bu loxo bi rëccoon rek mu yokk ko fàqat ko mu ngi koy cokkaas ci suuf pour mu pour mu bàyyi laa ilaa nga gis bëre loxo boobu rek moo ko sono loxo ndey joor boobu. bis bu rëccee nga gis mu fàqat. waaye Soro xam na loolu moo tax du ko bàyyi. du ko mës a bàyyi looloo tax sa waay bébé arobas ràcc. ndengeeñ mu mi daal di koy bloqué. Mhm. loolu moo tax fi ne kenn ñoom ñaar comme ñëpp pour ñu liggéey pour gis loo xar jëppen du dem loxo bala waaye Soro ngi koy xaar mu ngi koy xaar. lu mu teg mu teg rek Soro teg gi am na ku signalé mbaa do am na koo dem Ardo koo xam ne Ardo. Fass dem na Njawara xale <laughs> oh, ya ngay ñamanté ñom ñaar yëpp ñew <laughs> waaw waaw ñom ñaar ñëpp a nekk di nacc la señor mom du ñak nah, xex waaw waaw dafa am doole don combat yu doy waar la bëre moom Balla Senior. waaye ma Malien ba muy daan triple les. keroog ba muy daan triple les suñu xel a nga ca. digganteem ak Robel. waaye keroog combat bu mujj bi mu am ma guy gi fii la woon. waaw waaw. kon yaakaar naa ñoom ñaar tey nañ wane seen bopp. Balla Senior am na seen la jën pourtant dóor bi du yomb waaw waaw waaw waaw ba jàjj rot jàjj rot jàjj yaa ngay rot yenn saay moom xale dellu nañ jawara oh hee waay xale yaa ngi nacca mata kaba bi du yomb de. kon yomb dañ la yeb. la ilaha illallah. lamb dafa doy waar. am ne moom moo Serekunda Westminster Stadium juroom ñetti waxtu taftal na ñaar fukki simi ak juroom ñen juroom ñeent waaw waaw fi ci Independence ah, fi ci Serekunda Westminster Stadium mam fi lamb def na fi jaloore june Salam promotion toj na fi Jinne Mori promotion toj na fi Gumba Gay promotion toj na fi waaye Nasir promotion wàcce na fi keroog sunu xel dem na ci bi Ama Baldé di ñëw di tuus fii keroog. moo defoon 12 combats 12 flag. barki Rasulullah fii rek la amee woon <laughs> kon nee naa la lamb fii xam na lamb tey Big Boss Entertainment ubbi eh xale yaa ngay dóorante oh oh, oh oh xale yaa ngay xeex. Gambien xoyantaan fii la woon. bilay Gambien xoyantaan keroog fii woon. Baba jeex na. oh Sora ñàkk na Sora ñàkk na moo am ndam ci kaw Sora waaw ci décision ni reflé combat baa ngi noonu fair play nee na ma kii li ngay bëri xajul ci kawam soo bëree sax lii moo la doon daan da ngay bëri ba daanu ci as yow mais dafa naa ko bu nanguwul bëre nga tey ndam noo amee baax na mais sant naa yàlla sant naa yàlla bu baax sant suñu ay écrit billaahi bo suñu ay écrit rek la am écrit baara kese kese kese kese kese la am man man suñu champion leket pour mu leen prési suñu sol coach nuyu naa ñëpp waa Baara sama ménagère bi nga xam ne day jëkkati xaalisam di ko def si man Keba billahi maa ngi koy sant di ko gërëm bëgguma ko woon dama ko bëggoon jàpp daan ko billahi bu dama doon xeex moom ba pare soo ko bëree moom daan ko tiri baa ngi ñëw tiri baa ngi sama papa day duma papa daan ko ko non nangul bëre yëpp makoy attaquer makoy attaquer makoy dor te bu taxaw dañuy taxaw bëre maa ngi moom ba suba billahi lolou problème de bëre bi ni ñu xamé la bëre tay ñi ñew gis ne sura indi xex nga fekk ci ko xex ngeen ba dem njawar ñaar yoon yeen ñaar lan mo tax nga indi taxaway bi tay dama ko newoon lamb ku dugg ci kër duma taw bu ne caat na la duma waro ko weddi moo tax ma ñëw tay xex ak mom bu taxawoo ñu bëri nañu bari de mais comme nga xex la woote di ci géew bi mu ngi wax lu ne manako kañu rayen dama jaala sama bakan bi may ñew suñu buntu kar la wax suul fa sama bakan mais dé rek waaw Borom Serekunda, Mokk Njaay moo Deus, ministério. di sant di leen jox seen yéeguwaay yéen ñëpp di la jox sa cër bu mat yow it euh, cër bi ma jox nii wax dëgg yàlla maa ngi ma yeboon ne bu ma toogee li nga xam ne moo gën a seet si yow sa sa micro nga taalal ma ko bala may sant kenn dama lay sant di la gërëm di am cofeel torop si yow du wax ne du c'est la première ñu gisee mais xëy na tey la yàlla dogal suñu jàkkaarloo man ak yow te damay ñaan yàlla bu ñu fi mu continuer waaw di wax ne tamit drapeau bi bi ma ko yëgee ba tey kontante laa ak mbégte kontante laa ak mbégte dama ñëw Gambie waa Gambie wanuñu ma ne sénégalais nga dañ ma jël def ma comme seen bopp def ma comme seen doom lu ma xewle ñu nekk si luñ xewle ma nekk si kon su ma demee ba ñu tuddee ma drapeau amul dara lu may def lu may bokk koog waa Gambie kontaan ci torop di wax nag sama gars yi nga xam ne ñoo jógee Sénégal xëy na Balla Gaye 2 am am na combat mënul déplacé wu mais mu xool ñaar ñi gën a fort ci moom. kii tey mooy commissaire moo yor musique gu Balla Gaye kon bu ko Balla Gaye déplacé indi ko Gambie xam nga loolu lu nekk lu rëy la te lu may kontaane la kii aussi mooy Baye Mbaye Ndiaye ku xam Balla Gaye xam Baye Mbaye Ndiaye kon bu leen yóbbalee waaw bi daa war a am fii la gars yi jàkkaarloo léegi loolu laa bëgg nag waaw xam nga mu nekk loo xam ne lu ma kontaane trop ak suma gars yi gars yi si ginnaaw ñëpp may sant ñu bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ñëw fekk si ma ànd ak man ak suma grand bi nga xam ne depuis ma ma ñëw Gambi ba tey moo may teete di ma teg si yoon di ma wax ay lépp samay business lu mu si mënti doon day ñëw di ma teg si yoon kon du ma ko fàtte mukk ak sama jëwrin sëñ Modou Kara man ak moom ñoo bokk Cheikh Abdoul Karim Cheikh Abdoul Karim moo ñu boole depuis Sénégal kon loolu yàgg la kontaan ci trop. combat baa ngi noonu ñaari xale yi kenn musta dégg mu ñëw ci lambi Gambia ñool ak ndaama la de maam Coins combat bu njëkk ama bu yundum la daan mu jógee fa daan booy nungu kebe ki nga xam ne moom moo nekk rëg dafa bëreeg bayis mu daan ko mu bëreeg tawféex mu daan ko ñaari combat ñaari ndam ñaari xalé yi waye benn takusan ñaari ndam lu ci am faaw kenn dégg ci muñal ñaari xalé ya ngay lewat waye combat bang ci digge bi combat wow. ci digge bi waaw waaw da koy daan la ilaha illallah rek rek daan nako rek rek daan nako Reug Reug daan na ko Reug teg na fees Reug Reug daan na ko mbaa Reug Reug ko mbaa Reug Reug teg na fees mbaa Reug Reug daanu loolu laa wax Reug Reug daan na ko mbaa Reug Reug daanu ko daan na ko combat jeex na nañ dem continuer interview yi ban yëg-yëg nga am ci dellusiwaat Gambie gunge Mame Mor waaw maa ngi sant yàlla bu baax di julli si yéen bi sallallahu alayhi wa di ñaanal sama ñaari waajur yàlla yàlla yàggal leen fi di sant bu baax nak Mamor mi mak mom moom nañ ak bayama ndjay loolu yag na bu ñu nit ñi dañoo dafa am bes bo xamanteni dañ ko tuddé drapeau kaa leen ñu loolu lañ ci sawar rax ci doole tamit so suñu boy suñu xarit Balla Junior di ci bëre yalla nako ko may ndam loolu defuma ci dara lu contentement di sant wa Gàmbi gi yépp nak di sant wa ball famille gi yépp di ci jiital sen président Fafa Cissé mang koy ñaanal tamit gudd fan ak wër di ñaanal gambie yeeg yépp ha yeah commissaire jërëjëf. waaw sant bah bu baax a ban sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaar di sant waa bu baax baax di sant suñu Mamor nga xamante ni moom ñu mom moom démb la parce que moom suñu xarit la suñu lépp la ñu tuddee ko drapeau xam ñu ba Dakar ñëw fii Gàmbi ñëw soutenir ko kon mom dañ koy ñaanal yàlla rek diko nyana ñaanal ca kaw ca kanam waaw mais sama gambi la waaw waaw loolu combat bu neex la woon combat bu neex la woon xam nga fee dama daan toog sa di seetaan làmb yi fii mais man avant mooy tukki man ak waa ji joxoon nañ ma sama combat man ak moom maag non non man ak leget waaw lekkoon na avance man ma lekk avance ah, ah laaj leen ko ah, dafa lekkoon ma lekk dafa war a ñëw ñu leeral ko lekkat na avance fan yii bu champion sound amagut adversaire non maa ko mën bu ñëwee ma daan ko ah barki alquran mako pour dole mako ko beure bëre bu ñëwee dama koy jangal beure waaw maa ngi sant baaxa baax jaajeuf ban yëg-yëg nga ñi wax tay ci flagu njaga yeen ñi ko ah jërëjëf mam ji bi kontaan na amad la ah, ci akhlu lamba ah, muy aad ak ciosan bo xamne ne wuñ ko bitim wa ah, ñun ñoko mom mu doon lo xamne lu am solo lay pour nguur gi dugal si loxoom jappalé promoteur pour ñu dundal ko pour ndaw ñi mun ci am xey Euh, tey nag am nañ kontante ngir jarbaate yi excellence président Adama Barrow moom lañ tuddee làmb euh, Serekunda West euh, drapeau bi sànq dugga si nañ ñu am ambiance mu mag ñu tertu ñi tey ñu ñëw jàppa jotaay fii ànd ak délégation boo xam ne Omar Cissé ca la bokka moom tamit nit la kuy jàppale His Excellency président Adama Barrow ci politique am ñu ànd ak Hassoum Thiam ànd ak yeneen kilifa yu nekk ci gannaaw fii ñoo xam ne ñëw nañ gunge si tey Njaga Saane ci bés bi acca tey boo ñu doon wax Ndiagadi Ndaw ndaw yi oote mu ñëw uyu mu amee significant bu mu wonee tey boo ñu doon wax ci moom ak lan la ñuy xaar ci ñu mel ni ñoom pour ñu dugal seen loxo ci luy dooleel làmbi Gambie. mam ji bi mun naa laa wax news bu am solo boo xam ne njaga pare na euh, pour jël na décision balaa ñu doon ñëw ci lamba bi itam pour tëgg ay lamba pour dooleel ndaw ñi euh, keroog bi ko waaye nee naa ko. Ah, danaa la jël yow mam jibita pour nga ñëw waxtaan ak moom ngir nit ndaw la loo xam ne yaa ngi yëngatu ci lamba waaye mun naa laa garanti ne njaga pare na pour jël ay millions dugal ko ci lamba pour dooleel ndaw ñi ndax moom ci boppam xam na ne lamba mun naa wàññi lu bare bari ci réew mi ci wàlli bandi ci wàlli ah, ndaw ñi ci boppam pour ñu mun a am xëy bañ a dugg ci yeneen yoo xam ne ne daf leen a indil ay tolof tolof yooyu mam ji bi njaga mu ngi ci tànk yooyu noonu pour gis ne ah, lamba dooleel na ko jàppale na ak promoteur jàppalante na ak yi pour xool naka la ñoo def tegg lu mel nii kombo ah, fii mu dem be Siaraar mu dem ba Yuaraar mu dem ba LRR mu dem ba North Bank ndax aada la boo xam ne réew mi yóbbu ko soxla waaye mun naa laa won ne daal njaga bi mu fii ne na ma ah, su ma pare woon gën naa pare aat ndeke lii ñu ko moom lii mbir la loo xam ne ne ñëpp mun nañ see gis seen boppa wax naa ne ko lamba nekkut lekk promo tey wala mbër yi waaye kii jaay gerte saaf ak banaana ta danay gis ci boppam ci lamba jaaykati kafe Touba ndaay fay lépp dañuy gis yu sëb dañoo gis seen boppa ci lamba dafa yaatu mam ji bi polo moo xam ne dafa jot pour réew mi ubbi seen bët pour gis naka la ñoo def pour lamba ni mu amee doole Sénégal ay mbër di si am ay milliard nekk si ay milliardaire ay mbër ah, di si jëriñ seen waajur ba di si jëriñ ak ñeneen ak ñeneen ñu xool it ban pexe la ñoo tëral ci réew mi fii pour gis ne ndaw ñi dooleel nañ leen ba nekk ay milliardaire ci lamba ubbi ay compagnie ñu am fi ay ballagay am fi yeneen mbor ñoom yakkini ñoo ñëpp war nañ koo mun a am fii pour ñu gis seen bopp ci lamba mam bi pour ministre of youth and sport loolu dana am solo mam djibi ah, su joté inshallah allah ñew ñëw waaye li ma la rek moy ne lamba warta am rek ci ñom ndaga wala family his excellence président arma bar sanka wax naa ne ministre of youth and sport dafa jot pour ñu ñaax ko mu xol naka la mo def waxtaan ak axlu lamba ñi yoré wali lamba ci réew mi mu xol yan buntala la jaar contre pour ak loxo ñom jappalé len comme ni ñoo le football bi ñu le ko lamba ndax lamba luñ mom la lolu suñ ko défé dana am solo waye his excellence président Adama baro dana continuer owaat ko pour mu hol yan bunta la mo def pour o promo tey naka la ñoo def pour lamba dal mu dem ci kanam lamba nit dinañ ko ragal ci benen bor fokk ne mbiri fitna la waye mam djibi ku ñew tay fi da nga xamne lamba mbiri nobal la dafa nobalé ñop tok nañ fitna amut police ñu ngi fi lepp mu ngi jaar ci yoon ànd ci yar ak ci teggin kon ñii foog ne lamba mbiri fitna la nañ xam ne lamba fitna taxu koo jóg. alhamdulilah rabbil alamin kontaan naa si lamba bi day trop lamba man mosuma dem si lamba. waaye tey kontaan si xale yi ma gis xale yi ñoo def tey si lamba bi daf ma kontaan noo trop te xale buy bore ma waa koñ la Serekunda fa ma ñëw ma teew ko dimbale ko ma gis li ma lu mel ni ñu mën a dimbale xale yëpp te soobee yàlla dina baax incha allah. waaw wax nga koy forom de haussissement pare nga pour dugal sa loxo ci lambi ga. waaw nu ma ko gisee nii moom foog ñu dimbale lamba bi daal mu dem si kanam dinañ waxtaan ak promoteur yëpp after ñu pare ñu toog ñu waxtaan ñoom naka la lamba bi ñu ko yóbbu si lool. di kontaan si doomi Gambie comme ñu mel ni ak ñu leen di jàppale ak ñu leen di dooleel. parce que Tijaan ya mooy nit koo xamante nit ku gëm liggéey la képp koo kuy liggéey rek waayam nga rawatina doomu muy Pathé ñi wax dëgg yàlla euh, téye Tijaan ya mu nekk brodaam unkulam lu nekk mu futee ko boor bu nekk gannaaw promoteur bi muy Alassane Balde di ko di kontaan bu baax a baax a baax gannaaw loolu bi ah Reug Reug mu nga xamante ni moom la yàlla jox mu am ndam li ñu ngi koo ñaanal tawfiq si kaw si kanam di nga xamante ni mooy Coen si nga xamante ni tey moo daanu ñu ngi ko ñaanal di ko encouragé pour mu gën a góorgóorlu te xam ne ah, naka la lu si kanamam moo naka la lu rëy rëy mu si kanamam di am kontaan ak mbégte lool seen TV bi incha allah rabbul alamin é bom, é bom. li wax mooy. waaw waaw. waxoon naa moom talaata ci sa gannaaw mu am lu bëri lu nga xam ne waxoon na ko tey boo amee looy wax balaa combat bi. waaw li ma koy wax mooy lenn rek na dëggal boppam rek waaw xam nga bu arbitre sifflé mu dëggal boppam rek man moom ku ne. xam la di xeex biñ xamoon wala da ngay ñëw bëree tey. lu ngeen ma xamee. ba jeex na. jërëjëf. Obrigado, a you. man li ca doon man fukki borom. du ma daal de xoyoon daan sax man maa ko man waxuma la yow. du ma daan man maa man. booy ñii ci bëre rek la ñuy man ñaari licence laa yor damay xeex ñu fay ku ma ko ci seqal ci néeg yeew la dafa jigéen barke sëñ Tuubaa maa leen man waay bëreeg moom. waaw fay naa la waaw combat moom xanaa jox ko cër bu moom rek ndax lamb la te mënoon na maa daan gënu ma ko ndey gënu ma ndey gënu ma ko bàyyi gënu ma bàyyi waaye xëy na yàlla moo ànd man tey waaye di ko encouragé rek di ko ñaanal beneen yoon bu bëree lu suñu waay kii yàlla ko yàlla may ndam. gis combat bi nga daan ko jël bu nga xam ne moom ak ay ñoñoom dañ doon bañ ma ne ko ne dafa teg fes ñëwal ñi ci bëre bi rëg-rëg nekk mbëru arène Quench nekk mbëru arène mbëru mbapat ñëpp joxoon ko feebaru ci bëre nga daan ko ci bëre jël bu rëy waaw sant yàlla rek xëy na moom lañ gën a miin xëy Sénégal moo ëpp luñ nekk fii ndax dañ koo tarbi Sénégal ñëw fii di ko fa wane kon yaakaar naa ni nii rek la mënoon demee waaw ndax wax naa leen ko ci biir wax nee naa ne xam leen ko moom waaye lii nalaw ci man bi si lay yeewu te bu yeewoo ñep nañ tiddaat seen gemmañ wax ñu ak son bi num mu waaw dama ko dor ciokas ko mu ñëw ma li ko ragal di ko côté bu mo ma delluwaat mu ñëwaat mu dóor kubu dal mu leer ma kuubi daal na lolo ko indi léegi bu ko indee mu gëdd ma delloo ko ci la daw dugg ba mu dawee dugg nak ci la kor loxo bi nooju ko ba mu ko noojee lem sama tank mu ñew teud tegul fess dafa teud dafa teud dafa teud complètement loxo bi la indi dama ko indi dama ko motali comme dafa dugg mën li koy jël léegi ma pare ko loxo bi nag moo tali ko boo ko moo talee mu tëdd. mu la rëg rëg teg bëtam. waaw ñaañi daal laa bëgg a bëree gu ñu toll Tapha Tine bu écrit Mara. wala Lion bu Serekunda waaw waaw jërëjëf waaw. xew combat la combat bu rëy la mën a xoyantaan bu rëy waaw waaw du yomb de waaw. l'expert lañ soxla xoyantaan ak l'expert mom lañ soxla ñun amateur yi xoyantaan dënnu xoyantaan ak l'expert lañ soxla l'expert bu bakaw xoyantaan bu kaw seen jàng la xoyantaan bu kaw seen jàng la da ana ah, xoyantaan bu kaw seen jàng lañ bëgg yaram be tang rek dama bëgg bëre lan nga soxla boy ñaan nañu ñu bëre boy ñaan bu bañul waaw nañu ñu bëre moom la soxla moom la soxla moom la bëgg bëreel boy ñaan la soxla nañu ñu bëre la c'est pare pare na dama bëgg bëre dama nam bëre billahi dama nam bëre dama bëgg bëre boo ñaa na ñëw ñu bëre torop gaay man gaay man rek lañuy xaar waaw sama tarkindaa yaa ngi nii ñëpp billaahi dama bëgg bëre waaw noonu la démé jibi billahi waaw ñoo der teer daxuñu kaa bëri ëpp ñu ko fit eh su loolu passé su loolu passé laspeer xoyantaan combat la dafañ ko amateur yëpp ko soxla nañ ko nañ ko dëgg gis nañ No yaa ngi dëkkante non dañ ko soxla parce que seen bëre bi seetu doon defi nii la matière yëpp dañ ko nii waaw ñu xam na naka la waaw balaa ñuy jàll feneen. mooy leket xoyantaan. xoyantaan leket xoyantaan time bi moom lañ soxla waaw boo ne kett jon jonn time bi nii moom waaw lu dul loolu moom waa beneen combat taxawut. danu champion la. léegi léegi mu defa combat la. yow nga ne lan. loolu la ah, ci loolu. ñom yag nañ ci lool ñom mbër muñ top rek ñu daan ko waaw mbaa ko daan leket waaw lu jot rek yomb kay rek lu jot rek yomb waaw maa ngi nonu korom ak fay lay ndeysaan mi ngi fala gu seyna bu la xol ci kanam tuuti rek dégg nga ci diggante ki nga xam moy boy bu jabang ak mam ko ba bu tay war ak ni ko ba bu tay war ah Boy Niang biñ koy mujjee gis Siteu la daan sew diis biñ koy mujjee gis moom tamit Sinthiou Alaaji la woon. mu daan docteur jël la bëree. docteur mu daan ko. kon ñoom ñaar ñëpp ku ci ndam la toog. waaye lii lu mu doon. tey lamb ji tey. lamb bëri bagaas. waaw. la léegi ñu ñëw ci ñaari mbëri seen jaar jaar. ay ca maam booy ñaa mu jaar. booy ñaa bëre ki nga xam ne mooy bébé général mu daan ko mu bëre guy gi bu ba mu daan ko mu bëre ak brise de mer brise mu bëre ak Siteu bu Banjul mu daan Siteu moom booy ñaa sawdis bëre nag bu Mara mu daan soora mu bëre ak ki nga xam ne moom moo nekk Siteu bu Sanxaay mu daan ko mu moo Modou Anta ndam demul ndam dikul combat bu mujj mu daan docteur ñaari xale yi ku nekk mu ngi ci ndam mu nekk combat bu am solo ñaari xale yi booy xool ci seen jaar-jaar ñoom ñëpp ñeenti combat la ñu am kii nga xam ne mooy Boy ñaa benn combat la ñàkk. Siteu benn combat bi ndam demul ndam dikul kon dina nekk combat bu am solo ci ñaari xale yi. Guys by Big Boss Entertainment we are now witnessing the combat special between Mbolo and Boy Nya of Jabang Mbolo. The two youths are in the rink ki nga xam ne mooy sew diis moo spray bopp bi yaramam bi lépp mu def ko ay li nga xam ne moom moo nekk ay buum. waaw mbër mbër la moo xam ne dafa fes te tey dafa indi mu takk xolal VIP ba na ma ko moom sew diis ah kon tey maanaam combat am pour mu gaaw dina jafe gis nga mbooloo. dafay diile combat. Ah, mbooloo bu sa mbooloo mu bari toppee sa ginnaaw doo ko sarax saraxee. ndaysaan mu ne eh eh eh allahu akbar. Boy Niang sew diis. combat bu metti la. Boy Niang Boy Niang lu mu bëgg faqat la bëgg lan la bëgg faqat la bëgg wala jàpp na ca ker ngemb la Boy bëgg naa jeexal combat bi waaye sew diis sew diis dafa diis sew diis dafa diis maam xam nga ne bu sew diis nekkul woon daanaan cong loolu Boy Niang song ko da doon jeex barki rasulullaay am na lu muy uude mbër mu yéemu la oh, oh. Sow diis Boy Niang. Sow diis Boy Niang. Sow diis Boy Niang. laa ilaaha illallah. eh waay Sow diis daan na Boy Niang. eh waay Sow diis daan na Boy Niang nee na arrière leen nee na dellu leen. Eh, ndaw Samba. eh waay ndaw Samba. Eh, Sow diis daan na ko jël bu xam nga ne Sow diis mi ndaanaan la. gis nga ni mu daanee Boy Niang yéé mu war ko nomba daan ko jël ba nee naa la maam ku am mbooloo bàyyi ko xel combat ba jeex na la ilaha illallah awa awa taal nga ñëw teewal fi Seynabou ban yëg-yëg nga am ci bés biñ ko tuddee ak boo ñu doon wax ci Seynabou ah kontaan naa lool lool lool na Seynabou nit ku baax la suma doomi ndey la maa moom ñoo def taay mi xale di fo te lu baax rek laa ko xamee kuy tegal làmba bi nag suma doom la Alieu suma doom la ma ko gërëm di ko santa mënoon naa demee ne noon seppi ñu si yëf yi waaye defu ko def ñu si boole kontaan nañ torop torop torop ñu ko gërëm di ko santa mu yëf yi gën a avancé waaw yàlla mun na ko yal na ko yàlla def yàlla na yàlla yokk seen place yi defal leen jaama te suturaal leen bu ngeen bëgg a yéen a ko xam yal na leen ko yàlla defal. yaa ma loolu noonu sama xarit yéen damaa bëgg yéen ba suba tëjal leen maa ngi yéen ba suba. To Dimas Big Boss Entertainment Serekunda Westminster Stadium lu Don doon jaay léegi mu lamb korom ak fay Balla signora ngi Balla Family Malie mu ngi joge Ibo Town Ekirimara Balla signor bere nak Mandela ñu ko fi don wax Mandela dan ko mu baye guuy gi bu sankay guuy gi dan ko mu bëre sobe ya mu dan ko mu bëreeg alaaji mbay alaaji mbay daan ko mu bëreeg nay leer nay leer daan ko mu bëreeg mboraan bu écri mara mu daan mboraan mu bëreeg ak booy balla booy balla daan ko mu bëreeg fadiga fadiga daan ko mu bëreeg waat ak mandela mandela daan mu bëreeg moodu anta mu daan moodu anta mu dajeeg amical amical daan mu dajeeg big so mu daan big so mu dajeeg ëmm 7 novembre 2021 mu daan Eumeu Sène Malien moo daan VIP Ramas daan ko mu daan Mola mu daan Siteu ordinateur daan original daan ko mu daan VIP waat daan Garga général bu neema daan mu daan Triple Less nay leer daan ko bébé xarañ daan ko mu daan ama bu Serekunda gëm sa réew Robel daan ko combat bu mujj mu daan guy gi ñaari xale yooyu ñoo war a daje korom ak fay. Karama combat bu doy waar a ngi nii combat la ndax Balla Junior dafa bëri amateur yu ko bëgg. Balla Junior maanaam tey bu ñëwee ci lamb da ngay xam ne Balla Junior ñëw na ci lamb waaye malien daanaan la boo xam ni ni muy diree ko noonu la mën a bëree booy xool ci wàllu poids da nga naan malien moo ko ëpp xale yi ñemewante nañ waaye Balla Junior tolloo na ak moom taxawaay xaw ma nag tey nag lan la lamb di am Balla Junior nee na ko doo dara malien ne ko bilaay dinaa la weer ndax na xam naa ne tey du yomb ci ñoom ñaar ñaari xale yi seeni combat seeni combat du yomb benn yoon laa ilaaha illallah ndeysaan ku ci nekk tey ku ci nekk tey ànd nga ak say tey laa ilaaha illallah combat bu doy waar la combat bi du yàgg kàbbu. Balla Signor ndax Balla siñor combat yi ñu gis mu bëree ko yëpp amul combat bu yàgg. ndax ndax yow gis naa ne ku xam Balla Signor yaa ko gën a xam ndax keroog bi nga ngembee booy Balla fii la bëreeg moom. fii la bëreeg moom. maa la wax loolu waaye tamit Balla Signor carrière am yëpp fii la la fekk. wallaay la. kon yaakaar naa ne tey moom dafa bokk ci mbër yi amateur yi gën a bëgg. Morane mi bu laa mujj Balla Signor mi moo ko daan. maa la wax loolu. Balla Signor a ko daan. ba muy bëre Alaaji Mbay bu Sénégal combat bu métti bu yàgg. keroog moog Alaaji Mbay nee naa la ma Balla Junior mi dafa bokk ci lamb. ba muy bëreeg Fadiga bu Banjul combat bu yàgg bu bu la woon bu doy waar la woon. Jom jaa bëri du dellu gannaaw. Jom jaa naa mën ne laa ñaari yoon bëree guy gi bu sànqaay xam naa ne Balla Junior li mu fi def bëri na. ndaanaan la. waaye Malien. Uh-huh. na tuuti ay tolof tolof waaye bi mu ximale ko ba léegi xale daanu ko. mu nekk combat boo xam ne nii. mu nañ ne ci wàllu doole malien moo xaw a ëpp doole tuuti waaye Balla Junior dafa man ci xeex maanaam tamit te tëlewul bëre. Modou Faye na nee naa la combat bu doy waar la. naa ko keroog ba France di sama xel a cay dem. keroog gis naa ci seen xel dem. keroog yaa mujj ca géew bopp. jaaxle rek. ba ma naan kàbb lu muy def nii lan la. <laughs> booba jaaxle <laughs> benn sëriñ la naxoon. keroog benn sëriñ ma naxoon. daf la naxoon loo nga yaakaar. ah daf ma waxoon <laughs> foofu. amuloo amuloo amuloo ndam. ñaar ñett loolu ay tottal la. Balla Junior malien bu club Mara. bi komba bi komba nar na neex falaagi Mamor Sarr la falaagu Mamor Sarr la Mamor danan bi Serekunda West Mini Stadium Big Boss Entertainment ñoni fi woo bi mooy seen first outing ci lambi ah, ah bi seen bis bi risna wa wa xolal VIP yu bari na nit refli bi mbilib na wisul bi Malien togn na nen Mbayka mooy central refli bi combat bu gaw ambiance ba ngi yëngu group chat ñoo yore ambiance bi eh way bi combat bi la amateur yeb don xaar tay ñi ngi leewaatoo kurpeñ tanagul congo amagul Balla Junior Balla ngay dox ak mané Balla néna ma luñ ma xamé Balla ngay jóg mam Balla ngi dem néna ma luñ ko xamé moy jor ta dina xex Malien néna mam xamna Balla Junior lan nay Balla Junior ci géew jaaxalu ko. waaye Balla Junior day xeex dafa bëgg a xeex. Balla ngay attaque. Balla Junior dafa bëgg a xeex waaye xeex bi du yomb. waaye tey maa ngi gis ay nitam ñu ngi koy wax ne Balla teyal. waaw waaye nee na ko ñëwal géew bi. Balla Junior malien. nee na ci géew bi ñu. combat ngi ci digg géew bi. Balla Signor Malien Malien door na Balla Signor Malien ku ci jum sa morom daan la ku ci jum sa morom daan la Balla door na ku ci jum sa morom daan la de Balla Signor Malien xeex bi du de Balla door na Balla Signor Malien Serekunda Westminster Stadium ambiance baa ngi yëngu. ku ci juum sa morom daan la de. waaw. Oh. Malien tëdd na lu xew. Malien tëdd na lu xew. Malien tëdd na yàq combat bi waxee. waaw waaw. waaw mu ngi koy sóor. waaw. Balla dox na ci kawam gëdd ko Malien reporter ko jox jër boobu ko mu rëbbu. ko jox jër boobu. est-ce que loolu yoon la ci Malien. xale bu toll ni Malien. nañ génne protestant bi. bu daanoo maa protest bi ngay ñëkk a génnee mu noyyi. ñi mel ni man dañoo bëri ci laamu ji maam. ah. Balla junior Malien. lan lay xeeñ lii lu muy xeeñ. mais est-ce que procès croisé bi waaw loolu la ñuy xalaat waaye ci ginnaaw saako yi nag xam naa loolu moo tax mu tëdd. mais Malien na jóg. na jóg bëre. man gisuma ah asafur a waaw. waaw man jàpp naa ne ku bu ko war a daaneel ba mu falaat gisaguma ko. balaa ngi fecc. balaa ngi biir géew bi. Malien Balla Junior. waa VIP yëpp jóg nañ. waaw waaw. Malien mu ngi bëgg tuutal malien. ah li may yëg maa ko xam limay may yëg maa ko. malien Balla Junior gora sabi ah man nag du xex waye lima xam dal bi arbi fuufee. xaw na nañoo xeex ñoom ñaar. Balla dóor na. robale na ko crossé dal na wala dalul nak duma ma malien. bu fekkee dal na tamit dalul na mo war dalé waaw bu dé fekkee dal na. na waroon a dalee bu ko dalon ci sasi lay dalu waaw ay Lamine Thiam lay mo gëna dëgg. Malien man bëgguma man bëgguma combat bi jeexee du safee. waaye bi am sa lan la. puy ci biir saako bi. mooy métti ba ci biir saako yi. ak bi am lan la. waaw bi am. ba arbitre fuuf. ba arbitre fuuf ba arbitre fuuf looloo jar a wax. dafa jël ko mu rëbb mu fàq ko mu rëbb. Balla ngi noonu action bi am ci combat baa ci digg géew bi Malien Balla Junior waaw loolu moo jaral la cee Lamine bi am lu waral mbilib bi Malien Balla Junior Serekunda Westmin Stadium Big Boss Entertainment dimanche ñaar fukki fukki fan ak ñaar Sunday 12 June 2020 Mali Malien jàppante nañ Malien Balla Signor ñu ngi ci Serekunda Westmin Stadium Malien Balla Signor malien Balla senior, Balla senior mo jakarlo ñin malien mo ñu jox ginaaw mo def ngembalu lu combat ba ngi non ci digi géew bi Balla Junior ngi malien ngi defar jajji malien Balla Junior ku ndaw West Stadium korom ak combat bi del si na xale yaa ngay man Balla Junior bi ma gis Balla Junior bu bees laa gis Balla Junior bu dal laa gis Balla Junior buy calcul laa gis Balla Junior bu ñëw ak détermination waaye ndax Malien dina ko ko may ndax Malien am na doole te tëlewul xeex te Malien koy xool ci biir bët di ko xool ba xam di lu mu de aw oh! Malien daf ko bëgg a bët daf ko bëgg a bët waaye na Balla moytu bu Malien nelawee ci tànkam yi mu jeex. waaw dafa bëgg a jàpp Balla pare xeex waaye Balla Junior détermination bi mu indi tey wax nga ko ndax boo gisee nu muy bëree moom moo nekk di dox ci kaw ki nga xam ne moom moo nekk Malien gis nañ li fi jot am Malien lu muy def léegi rikoba daf ci bokk mooy day rikoba day rikoba ndax Balla tamit pour mu may ko ko ba Malien dellu si biir combat bi fiñ toll nii Balla ngi noonu Malien. waaw ndaysan xam nga amoon repp bu amone ci wetu saako yi foofu daanaka ñu bari foogoon nañ ne combat bi jeexna waye bi ñewate fi ne malien fay xalat foog mu tok ba mayen bi dal la joom fi mu nekk nii. mu ngi dig ay tànkam ci suuf di dëj ay tànkam moo tax tak arrangé la ci ñoom ñaar. loolooy problème bi looloo tax xéx bi noonu wa wa waxon na la ko waxon na la ko. bala señor malien bala señor malien bala lol dalu ko.

xeex nga bëre nga nga daan Mali ya jël bu rëy Balla Junior lan nga indi tey. waaw maam ji bi waxoon naa ko Balla Junior dafa yàgg si làmb yàgg sonn si làmb man samay sama benn morom mënu ma mais xam nga jafe-jafe bu ñëwee nañ gëm yàlla ñun ay jaamu yàlla lañ. ndam loo indi da nga xeex. kii jàpp sa tànk ñëpp dañoon combat bi jeex na nga daan ko jël bu rëy. combat dama see liggéey lu métti gis nga Buldy nag Boy Niang dama jàpp ne sa dañ maa bañ barki sëñ Touba gis nga gaa yëpp dégg ma yéene ma ndam stade bi yëpp tey sama yaram tey tuus bi sax boo gisee ni ma doon tuusee dama doon jooy si biir tuus ndax gaa yi stade bi ñëpp ma yéene ndam baay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.